jërë ngeen jëf fekk ndëndum jàmbur muy tegee nga ne ko coppet yóbbu yomb na la la mooy foo mën a toog teg ko fa di tullee ka talbat ubbil observateur ki faat Bassirou Faye tama du ko ëppi boom observateur xanañu faatug Bassirou Faye waa ji di tombongwaale lañu joxar bi baaram tuma ba jël ko téye waaye doyen des six gannaaw ba njabootug Bassirou Faye gi yóbboo plainte ci moom di leen xamal ne ki ñu jàpp di tombongwaali bokkut ak ki faat Bassirou Faye ki faat Bassirou bi di seet jaan joxar bi na ko baaramam tuuma journal bi na nañu doyen des six nattaneenal boobi le plainte ki nga xam ne moom la seet jaan joxar bi baaramam tuuma moom ci jëmi boppam ca moom la doyen des six fas yéene jëm wal jàpp nañu ko jàpp ne mooy ki faat Bassirou Faye waaye téye gi ñu ko téye am na xel yu ci tàmbalee jiixi jaax ndax moom la am du moom ba tax na kii di doyen des six ma ngay toppi tànki ki faat Bassirou Faye keneen ku yoon nekk ci tànkam moo di Karim Wade la Sénégal ñu déposition bi Cheikh Tidiane Ndiaye def ca kanamu cour répression enrichissement illicite lu ne weng la fa waxal Karim Wade ak Vieux Aïdara Le Soleil xëy ñun ci waxi Cheikh Tidiane Ndiaye ci mu ne Karim Wade mooy ki libéré capitalu AN Média populaire nañu Cheikh Tidiane Ndiaye dafa gën a fotoñ Karim Wade ci canal aju ci mbirum canal info ak AN média xalaat bi ci mën la jóge waaye lu ca dem cee koppar Karim Wade ko taxawal ba noppi jël pour cent jox ma jël cinquante pour cent jox wii ay dara lu ca dem ci xaalis nag ci posu Karim Wade la jóge ba ci ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukki millions yi ñu jëndee ay matériel Karim Wade ko joxe récib ak juróom fukki million yi ñu ko jëndee Karim Wade ko joxe Pape Diop mi fi newoon jamono njiital Sénat moom ko jox ci loxoy boppam ci le quotidien Cheikh Tidiane Ndiaye nañu fa canal info li ci Karim Wade def ciy koppar ëpp na benn milliard enquête dina kay xëy ca ba xëyaale ak ñun ci taxawaay bi Pape Diop njiital Sénat la woon ak Mansour Gaye bu cabinet Grant Thornton amee woon ci moomile mbir meneen mbir mu Macky Sall def mbiri boppam Sud Quotidien xëy na ko ca fekk si autosuffisance alimentaire maanaam Sénégal ak li muy dundee mu bañ caa jiggaani lenn lépp di meññee ci réew mi journal bi nañu Macky Sall lëm ci jublu moo di xeex ab xiif ci réewum Sénégal observateur xanañu ba mu nuppee a a njiitu réewu Sénégal moo di atum 2015 la Sénégal ba tax Sénégal defu ci ay jéego yu rëy Abdallah Dionne mi premier ministre bu Sénégal nañu ci journal bi loolee terewul yëf yi bés bu rëy la ci koomu Sénégal ci populaire moom Boun Dionne nañu fa nañu ñu bàyyi ñu liggéey ay liggéeykat ci xëtu njëkku la Soleil mu di président Macky ak l'homme des affaires bii di Cheikh Amar ñoo nga woon ca phosphate ga ca Ndendoori yéen a yéenekaay bi nañu ñoo ngi waaj a taxawal ab usine buy defar engrais ci diwaanu Matam leneen lu ñu naal teg fa it bokk na ci tund di village nga xam ne ñoo nekk ca wala du fleuve fu ca nekk ñu dugal fa courant direct info dugg ak l'homme des affaires bii di Cheikh Amar ci waxtaan wu rëy du dara lu fa Cheikh Amar bàyyi ci waxtaan wi wàllu mbay ak wàllu phosphate lépp Cheikh Amar dellu si na ci di xam le programme social bu ñuy naal ci diwaanu Matam boo xam ne at mu yàlla sàkk dana ci dugal juróom benn téeméeri million ak juróom fukk ci diirub juróomi at leneen nit loolu wax na ko fa moo di wàllu phosphate ak Sénégal ak qualité bu baax bi mu ci amee Cheikh Amar ne qualité bi gën ci qualité phosphate Sénégal la am Jordanie mi ñuy coow ci wàllu phosphate sax ñëw ko ko gën le ban dëkk ci Sénégal mooy dëkk bi ëpp lu ñuy jëfandikoo ay préservatif ci réew mi tontu laa ngi ci le quotidien yëral xëtu njëkku journal bi docteur Habib Ndiaye di médecin chef moo ko fa waax nee na dëkk bi ëpp lu muy consommer ci capote ci réewum Sénégal Kédougou la